man Serigne Sam ñang lañ ma. Serigne Sam ñang yow fan nga joggé man ma ngi joggé Dakar. Dakar waaw damay liggéey Sandaga mais pigine la dekk quoi. nga ñëwoon tay ci dëj bi wax na voilà. wa lan nga xalat ci Sidi. wa Sidi mom roy kay la ndax wax dëgg yalla ñun ay tout tang lañ mais daf ñu jangal lu bari. lo xamni ni sa su ne rek dañ ko foko ko gis si këru diine rek da nga naan fofu la bokku ndax day yaatal te waxtaan bi mu fay waxtaan maanaam ku mu toogal ku ne rek da ngay xam ne kilifa moo toog ak yow loolu nag moo ma marqué ba tax ma ñëw fii si levi de corps bi waaw loolu daal laa ci kii te di ko gënoon marqué ci moom. waaw parce que dafa nit ku dëggu la xam nga nit bu dëggoo lu muy def day nekk ci dëgg ndax amul président amul benn kilifa goo xam ni rek sañul taxaw ak yow wax la li mu sentir te li mu sentir réew mi moo tax mu koy wax. waxewu ko ngir bakkanam waxewu ko ngir poosam waxewu ko ngir dara réew mi lay waxal kon nag réew mi ñàkk nañ ko mag ñàkk nañ ko mag mais nag yal nañ suñu borom may koo xam ne nii dina mel ni moom du yomb nag ci réew mi yombul de parce que li mu mënoon ak fit gi mu amoon pour wax yombul ci réew mi ñu nekk mais nag suñu borom moom denc na lu kenn xamul waaw yal na ko yàlla teeru sa àjjana yi gën a kawe ci barke